di di feeñal nag suñu mbégte rek nag euh, fii sura la kër sëñ Maxtaar ñuy feeñal nag mbégte mi nga xam ne moom lañ am ci nii ñu ko def nii euh, ndax wax dëgg yàlla buñ gisee image yi nga xam ne moo jiitu woon ak yi ñu toll nii wax dëgg yàlla war nañoo mën a feeñal mbégte bu baax man nag en tant que bàjjanu gox su ma yëgoon ni ñëw damay damay damay damay damay damay damay fes man damay woo samay samay waa kër ñu génn wan leen ne bég nañ te mbégte mi tamit duñ ko yemale ci ci dañoo bég nii rek dañoo bëgg a bég wax liñ bëgg tamit ndax lii dañ koo am nii waaye dañoo bëgg loo xamante ne moo gën a kawe di sant bu baax sëriñ bi toog nag sëñ xalifa mi sëriñ si toog sëñ Cheikh Makhtar kilifa yi ci koñ bi yëpp sëriñ Fallou mi nga xamante ne mooy xalifa sëñ Makhtar Binta ñoom ñëpp daal ci mën naa wax ne seen kàddu laay waxee daal ndax man maay bàjjan gox bi fii mën naa la wax ne la màggalu daaw fii moo fii fële garab gee moo nekkoon garage bi nga xam ne bépp matériel bu jëm fii wala nit wala oto foofu lay yem dañ doon obligé di jël ay saret ñi mënut a ñàkk a jàll jël ay saret kër yi ñoom mën nañu wax ne daaw màggaluñ kër yi nii yu ci bëri màggaluñ dafa am na kër yoo xam ne mënuñoo tuxu ñi nga xam ne mënuñoo tuxu nag dañuy taxaw wax liñ bëgg ndax liñ bëgg fii la am dëkk bi lépp fi am dëkk bi ndax borom dëkk bi lu mu bëgg daf am kon nag ñi nga xamante ne ñoo am initiative ñëw def lii dañ leen di wax ne leen dañoo bëgg heure bii déwén incha allahu yàlla nañ ko fekkee dañoo bëgg ñu inauguré tali fii. tali bu am solo la euh, euh, mooy tali Sam dafa jóge ci tali bi jóge Kébémer di dugg Touba euh, jëm ci quartier Sam mu nekk mbedd moo xamante ni bu dëkk bi xatee oto yi di jege Ndar di jóge Kébémer et cetera bu ñuy dugg Touba fii la ñuy contourner euh, dem ba ca ba ba Sam ñu contourner ci à gauche dugg ci dëkk bi yu bëri dañ koy emprunter mais ndox mi def ko yàqoon ba kenn mënu fi jaar même auto waa quartier bi dañu amoon ay jafe-jafe ak seen transport régulier pour taxi yi di fa dem donc euh, marabu bi nañ nañ ci taxaw defar ko ba ubbi ko ndax am na solo lool pour ñoom. looloo tax ñu liggéey ci liggéey boo xamante ne bi euh, reprofilé waat nañ ko dolliwaat nañ ci rechargement compacté nañ ko ba fii mu nekk mu ngi daw normalement nekk na un kilomètre cinq cent partie bi nga xamante ni dafa am ndox dafa nekk ci benn projet ça fait cinq cent mètres mais ci beneen projet euh, Touba amee euh, je pense Promoville amuñu droit laal ko mais defar nañu benn voie de contournement de de cette partie ba oto yi bu ñu duggee danañ jël voie de contournement boobu jël à gauche dugg ci biir dëkk bi donc loolu moo tax euh, sëriñ bi noonu nañ ci taxaw yàlla def na jàmm def nañ ci liggéey boo xamante ne bi am nañu yaakaar ne euh, bu oto yi ñëwee mën a jàll correctement et dana wàññi xat-xat bi am ci ci biir dëkk bi. waaw bi ñu dikkee ci mbale mi ànd ak Baye yi le deux am na trois safar ñi lekk yor projet bi dañu sollicité woon parce que UFR bi nekk suñu ginnaaw nga xam dañ ko bëgg ubbi ci at mi ñu Euh, année académique bi dañu sollicité woon pour ñu def ay terrassement ndax terrain bi ni mu meloon praticable woon donc biñu dikkee jàppale nañ ci mbay ci ci bale bi bi ñu bayee ñu kon ni mbalit di yóbbu waaye teewul tamit def nañ terrassement ci zone bi nii ba nga xam ne bu tawante ji ndox mi du taa dina dem ci zone bi nga xam ne lañu def kadi def nañ terrassement aussi ay route d'accès ak voirie interne bi bon lépp chemin en terre lañ ko def pour l'instant mais dina permettre au moins mu mën a circulable ba comme période hivernale nekk euh, oto dina fi mën a dugg mën a génn sans nga am yi nekk war a jàng tamit nañ mën nekk ci université bi sans sans problème parce que c'est un machine bi ci ginnaaw dépanneur lañ koy wax dépanneur poids donc machine bu bees la boo xam ni dafa ñëw ci weeru safar bi semaine bi passé lay doog génn port comme dañoo nekk Touba nag suñu kilifa Ablaye la eh, yónni ñu fii pour ñu liggéeyal sëñ bi moo tax ñu bëgg a barkeelu ci barke boobu ñu indi ko fii sëñ bi ñaanal ñu ci ñu doog koo delloo ndax SMPL mi nga xam ni moo yor entretien matériel Ecotra bi moom mooy yor machine bi tamit am na ci yeneen yu mu ci yor yoo xam ni euh, tey jii mi ngi liggéey ak Eiffage Autoroute nekk Dakar nga xam ni lépp luy dépannage oto bu paan oto bu ndaw ak oto bu mag yëpp ñun ñoo koy ñoo koy gérer foofu te bu jox leen euh, benn chiffre rek foofu daanaka weer wu jot équipe SMPL bi nekk foofu dinañu dépanner lu mat mille véhicules donc huit cent ay oto yu ndaw la ak deux cent yoo xam ne ay oto yu ay bus yu mag ak ay ay poids dépanneur bii nag bu bees la boo xam ne c'est unique euh, je veux dire même à l'Afrique de l'Ouest SMPL euh, xëy na moom moo ko ñu ko am la boo xam ni capacité am cinq tonnes la donc dafay camion bu daan woon ak chargement am sax mën na ko yëkkati tegaat ko ci ay poudam bu dee camion mën na daw dem mu daw dem bu dee mënul daw dem na ko yëkkati mu yóbbu ko fépp mu ko war a mën a yóbbu ci Sénégal te du am benn biir Touba li fi def mën na deux kilomètres mat na deux kilomètres ci route de Sam bi def nañ fa un cinq cent biir Daaru Xudus tamit ak yeneen quartiers nekk Wata Sura def nañ fa lu a toll ci cinq cent mètres donc lu mu néew daal deux kilomètres defar nañ ko ci tali yoo xam ne tey jii bi ñuy ñëw oto mënu ko woon a jaar te léegi jàpp nañ ni fii ak màggal gi ak ba màggal gi weesu bu dee amul agressivité bu nit ñi daal nañ ko mën a circuler surtout tali Sam bi comme ni ko sama naataango dafa nekk tali bu am importance ndax sëñ bi def cee insisté woon bu baax a baax ñu gëm ko defar ndax day yombal nit ñi nga xam ni dañuy jugee fu mel ni Saint-Louis Louga Kébémer Darou Moussi parce que route de Darou bi souvent bu amee embouteillage te chaque année noonu lay demee nit ñi foofu la ñuy a viré pour dem jël 30 mètres bi mën a ñëw dugg si biir Touba donc foofu defar nañ ko ba fu mu nekk ni macha allah wax ji dañ koy tënk rek ci xamle ne yitte ak yéene président Abdoulaye Sylla dëkk bi ak ci liggéey Serigne Touba yàgg na ñi ko xam ñëpp ci lañ ko mas a xam bari ay xaritam bari ay bokkam ñu ne ci dëkk bi ko ci wax dalay wax ne la Abdoulaye Sylla lañ ko xamee ba léegi ci pasteefu yenn liggéey Serigne Touba ci la nekk xamoon nañ bu baax diggam ak Serigne Sidi Mokhtar ndax jitteem pasteefam Serigne Sidi Mokhtar xamoon ko ci moom wax defoon ko doomam defoon ko xaritam maa nag moom liggéey Serigne Touba lu yàgg sëriñ Seydil Moxtaar wàcc sëriñ Muntaxa mii bi mu yoree liggéey sëriñ Tuubaa bi itam waxtu magalu Tuubaa ñëwee président Ablaye Sylla benn baat lay wax suñu yitte jëpp dañ ko jëmmale ci Tuubaa ba magal gi jàll ren bi magal gi jubee directeur Assane Sylla mii di sama xarit bi sama jarbaat mu ñëw ci man déplacé wu ñëw ba egsi président Ablaye moo ma waxtaan lépp li tax liggéey bi baax nu ngeen ko bëggee ñu defee ko noonu waaye président Ablaye wax na ne fu ñu am dara sànc yëpp nañ ko tëj fu ñu am matériel nañ ko déplacé mu ñëw Touba liggéey Touba bi rek nay suñu yitte dama Assane waxee loolu man wax ko date bi ma bëgg ñëw le vingt huit ndax le vingt neuf la ñu waroon tàmbali le vingt huit bagage matériel matériel bi yëpp ñëw le vingt neuf yi ñu war tàmbali maa leen joxoon programme ñeenti fan yi ñuy bale camions yi dama leen di soxla ci mbalit mi xam nga mbalit mi day bari nit ñi day bari il faut ñu jàppale ñu mbalit mi génn ba pare ñu doon na nag liggéey ma necc ndox ak suuf noonu lañ ko defee ak defin war a fet te bala maa jàll foofu nag danaa fa sant chauffeur yi vraiment chauffeur yi jàmbaar lañ lool nangu nañ lool passeefu nañ lool ci liggéey bi waxtu wu dama leen di xool ci biir waar yi di yéemu ci ñoom te la ci solo mooy koo ci groupe boo ci boole benn bu ñëwee danañ jàppaat ci loxob safar ba nga leen booleel di ma seereel ak seenu cant ba bis bi ñuy wàccee rek am na ci safar boo xam ne ba dix heures ci guddi wàcc ndax mbooloo ma ñoo ko ne mënuñoo dem te sëñ Saa ñëwut te mënuñu fee bàyyi noonu la toogee ak ñoom ma ne ko heure bi nga waroon wàcc jàll na waaye dinaa ko wax sa kilifa noonu laa woo fàllu see wax te ñëpp noonu lañ liggéey waaye kon bu may dellu si damay jot ci kër sëñ sant sëñ Muntaxa ci président Ablaye Sylla sëñ Muntaxa sant na président Ablaye gërëm na ko ndax xam na yéeneem ci liggéey Sëriñ Tuuba waaye nag nimalul jaam bi wala tafeexu taale bi mi ngi yem ci jaam yéene liggéey Sëriñ Tuuba te la nga mën lépp nga di ko